وصل للحق من حق مبين وحلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لقد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان الخبر الخلقي man kaana lii bi karmi watil xi lam yanu saati jaalibun niiraani aw jaalibul maarayni wal xusraani lam yanxum ni dara dunaani duniyaa waxta sa nii baaxi bi xeeri sun yaa malaka ni maalam yabbi waan ni waqaade lii baqaawu bit man ni karamati kitab man rafa'ani bihi ila jinani mustafa anni ma mamatan قد نفوسا ولي سوايا ساقوتا فيسا إلى سوايا نحو انتهاء الموت نال فوق كلها بفوتي لم تنوني مقدمات الموت وقد رفقت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدله من موت النفس ما ناني جدله توسي عن الموت بقاء لاي أبقاني الله لوجه لاي كفاني الباقي ما تسرمدا وببقاء يسر أحمدا نفحني ولم يدرني ولا يدرني كل حلي خلا تسيحني الأمراض والممات بقاء عاصم من سماتي حلمني بقولي إليا البيت الرافعا بيا مريا لا سك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكا الأمين والأمين كتاب باقي جاء تامين ملكا الأمين والأمين ملكا الأمين والأمين كتاب باقي جاء تامين خاتمة المناجات بالخط هذا الخط جعلني الله تبارك وتعالى حبدا لوح وخليلا لوح وحبيبا له سائر وباطنا وجارا له وخدما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله حرام أن أقول وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي بي بيعت ثلاثة وثلاثين ودمائر شهد الله أنه لا إله إلا هو wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa hakim inna diina inda llahi al wa sayyidullahu tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala ana katib la zuru la yamut abadan wa ana al-mawt alladhi kana mutawajji illi fi qawli ta'ala kullu nafsin sa'iqatul mawt ma tawajju ilayhi bi qadri asmati saati bila tawji say'un منه إلي ولو حرم أن نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن البيت الله حرام ترف الملائكة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله حرم أن نقول وكيل وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمين وحي الله ويدخلوه ويدخلوه فيما وما كاتب الحاسب الوفي ما جميع كتب والامتيات إلى ما للذي يكون معهم في أين مردين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب الخاص حروف أما الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي إلى المعروف ويلاسي ما لا يخفى حلال الله تبارك وتعالى وعبدا أعنى يدي النار

वर्षे والبين ساد إلى حبل وداد خذ المرادا يا من أفادا بلا كراي حبل وداد خذ المرادا يا من أفادا بلا كراي حبل برورا كن خرورا ànd na ñun liggéey bi depuis ca suba mën naa ne ba tey waa karawaan bi nga xamante ne bii mooy karawaan sur le traces de si Ahmadou Bamba au Gabon nga xam ne ñoo taxawal liggéey bii di ci liggéey ay at maanaam àndandoo di ko def ci ay nit ñoo xamante ne bii dañoo takku àndandoo ci ay gox yu wute ñenn ñi ngi France ñenn ñi ngi Italie ñenn ñi ngi Sénégal ñii ñi ngi Guinée Bissau Nigéria maanaam fépp ci àdduna bi daal am nañ fa ay membres yoo xamante ne bii ñu ngi ci biir karawaan bi. loolu nag yàlla dogal bi ñu màggal see ñu xalaat nekkat war nañoo def mel ndaje moo xamante ni bii dañ ci dajale ñooñu nga xam ne ñu ngi déggante ñëpp te suñu borom dogal gisanteegun lépp nag ngir waajale ko karawaan bi nga xamante ne bii eh, moom lan dégmal nii muy quatrième édition bi. loolu nag bi biñ ko wootee eh, maanaam yàlla dogal mbokki taalibe bi yëpp rafetlu ko ànd ko ak ñun ndax biñ ko waajee sax mën na ne yàggul. waaye biñ ko biñ ci waxtaanee ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dale ko ci soxna maam jaara Bousso mi nga xamante ni moom soxna may galas mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak sëriñ seex mbeng mi nga xam ne mooy jëwrin ji ñoom itam ñu rafet lu ko waa karawaan bi yëpp itam lu ko ñu jóg di ci dox ba sunu borom dogal tey mu demee nii di sant mbooleem koo xamante ne bii bàyyi woon nga sa ay yitte ñëw ànd ko ak ñun rawatina ñi nga xam ne dañoo jóge ba fu sori ñiy jógee Kaolack am na ñoo xam ne jóge nañ ba saint am na ñoo xam ne jóge nañ ba Thiès ñëw ci lépp ngir jëmmi Serigne Touba ji rek la ñu xam ne nag lii moom du xaasim saar du xaas saar moo tax ñu def ko waaye jëmmi Serigne Touba ak mbooloo moo xamante ne bii ab kuréel bu àndandoo di liggéey la moo waral lii waaye bu doon sama jëmm dong dong euh, mbooloo mi du demee nii. di sant bu baax soxna si nga xamante ne bi tam moom lañ ko tuddee woon muy soxna bu Mbacke moom suñu abibum Serigne Xaasim Mbacke nga xam ne euh, sunu Serigne la ba noppi ànd ak ñun ci liggéey bi. ba ren jii sabab na ay nit ñëw ci karawaan bi eh, te jëmoom jooju rek tax muy soxna maam Isa Mbàkke ahlu kafe gis ngeen teewaay waa ahlu kafe gi wax dëgg yàlla depuis ca ngoon ba tey ñu àndandoo ko ak ñun kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom yokku leen barke Sewul Xadim ñu ngi sant bu baax suñu jur yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci kër gi ndax tey jii lii lépp bu amee itam maanaam seeni jëmm moo tax ndax eh, yar bi nga xamante ni moom la def ci ñun mooy jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba ak liggéey maanaam euh, saw ñaq maam daan doole saw ñaq liggéeyal Serigne Touba loolu la ñu yare ci lool lool rek lan xam fu man di nekk itam loolu lañu fay nekkee kon buñ mënee dem bay dajale aw nit ñuy ñëw fi ñëw fii kon seen jëmm yi la ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan sunu borom guddal seeni fan yëral seeni wéral seen ay cër di sant bu baax sunu mag yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci kër gi maam saar mi nga xam ne mooy sunu taaw ne ci kër gi wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Moustapha Sarr nag moom wax dëgg yàlla duñ ci sori ndax ku gis jotaay bi ni mel nii ci maanaam installation bi euh, rajo yi ak maanaam làmp yeeg lépp ni mel ngeen xam ne ah euh, maanaam ak sot am na ci loolu nag moom dan koy bàyyee euh, sunu borom mi nga xamante ne bii mooy moo tax mu def ko yàlla na ko fay gën koo yokk ba yokk ko fépp nuy dégg daal borom yi matériel. yàlla nañ ko fa dégg barke Seexul Xadim di ñaanal mbooleem waa quartier bi nga xamante ne bi depuis ca suba ba tey ñi ngi fi ànd ko ñun liggéey bi ñi ngi di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan itam sëriñ Modou Sarr mi nga xamante ni itam ah, sunu mag la ne ci kër gi moom itam jàppale ñu ci liggéey bu baax a baax ak soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci xéewal yëpp ñi ngi leen sant di leen gërëm bu loolu paasee ñi nga xamante ne bi ñoo nekkoon ci karawaan bi eh, ànd noo ñëw fi sëñ Madiaw mi nga xam ne ca suba mën naa ne bi laata fi la añee fii la yendu ànd ak ñun liggéey bi installation bi ak defar bi lépp ba ñu taxawal liggéey bi mu taxawaat yor microcentrale di joxe mbokki taalibe yi ñuy jàng te moom muy ab jàngkat comme ñoom dàq dàq jàng ñu ci bari boog sax wax dëgg yàlla kon loolu ak OFM la waaye nag dafa bokk ci liggéey bi ndax yàlla dafa dogal karawaan bi ren ñu ànd ko ak moom mu ñëw gaboo ñu ànd liggéey bi mu rafet lool kon bu ñëwaatee fii euh, àndandoowaat lii wax dëgg yàlla kon day wane ne moom da cee bokk moo tax mu doxale nii kon nag ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko ñaanal di sant bu baax nag euh, sëriñ xaadim sekk mi nga xam ne mooy njiitul Touba Vision ndax euh, yàlla dafa la ko ñuy suñuy partenaire fépp foo xamante ne ñi ngi fay dem di fa taxaw rek dañ koy ànd ak ñun ba ci suñ karawaanu ren bi ñoom ñoo ko couvrir wax dëgg yàlla wane ko fépp ci àdduna bi ba tax tey jii foo tourné ñu naan la seen karawaan bi seen jëmm yi la kon nag ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yokku leen fépp fu ab média àgg ci àdduna bi rek yàlla na fa seen média bi àgg fu ko raw ci bàkk seen xam bi siyaare sëñ ñoom ñoom sëñ Modou Faye ak euh, sëñ Xaadim Bamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare baax xam nañ ak tënk xat-xat ya tax ñëw ñu waaye seen yéene xam nañ ko baax a baax di sant mbooleem koo xam ne teew nga fi rek sant di la gërëm di sant sëñ Mame Gueye mais nga xam ne sunu xarit la di jàngkat moom itam mm, bu nu xam waaye dafa ñëw rek toog ànd ak ñun bis bi te wax dëgg yàlla ci jàngkat yi la bokk kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.